asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 18 novembre 2020 ñoo kenn yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey fenn la xëy génn wala ki mu xëy seqal waxtaan tey moom la ñuy wax Laye Ndiombor maanaam Ablaye Thiam ñu gën ko xam ci turu Laye Ndiombor moom nag mooy actuellement entraîneur bi nga xam ne nii moom moo yore jàmbaar wrestling academy mooy seenum entraîneur xëy na nag di wax ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé jàpp na ne boobu combat daal combat la boo xam ne nii daal laay daal wax na la nga xam ne nii moom la ca gis ci combat Modou Lo ak Ama Baldé jàpp na ne daal ñoom ñii daal ñi ko seq kat ay vrai gaynde lañu ay jàmbaar pire lañu loolu lay laay njomboor xëy tey di ko wax Siteu ak Papa Sow tamit ñëw na ca moom muy entraîneur Papa Sow laay daal ne ne Papa Sow la koy xaar ci bés boobu moom dèjà xam na ko Franc tamit ñëw na di wax ci moom jàpp na ne ci làmb ji mbër moo xam ne ni waru la mën a daan tey ci làmb ji moom laay njomboor daal loolu la gis ndax jàpp na ne xale la gëm na la muy def te itam mën na ko ñëw na ci bureau bu beeso bi nga xam ne nii ñoom yore làmb ji léegi muy biraaseen ak ña mu àndal jàpp na ne moom bu dee biraaseen la moom bu yeboo ngi dalal xelu sénégalais de lii ñu ko jox moom Bira Sène dina ko doxal te dana ko teg ci aw yoon ndax ne nan waa ji am na ñoo xam ne xamuñu ko waaye man laay njomboor xam naa bu baax a baax a baax ka nga xam ne moom moo yore làmb ji di Bira Sène Isabelle Samb tamit tabb ga ñu ko teg laay bég na ca lool ndax jàpp na ne lu ne jox na ko Sénégal te ne na lool bi muy am xëy na mosu caa gagné dara ne na kon tey bu ñu ko joxee la nga xam ne nii moom la yore ca làmb ja mu war koo doxal rawatina wàllum làmbi olympique ja jàpp na ne loolu moom méritam la ndax nag lu mu liggéey la ci réew mi jàpp na ne sax kii Seydi Isabel moom mérité na sax lépp loolu moom laay njombor loolu la xëy tey di ko wax mel ni ki nag CNG booba nga xam ne nag léegi jël nañu lenge war a liggéey mu mel ni ki tey jii nag ci àllarba ji daal ci la xaar nag ay décision yu mag a mag ñu jël ko ndax nag tey la ñuy liggéey ba moo tax yëg li kam ne ne bu ñu yeboo daal tey ñu xaar moom maanaam ay décision yu rëy rëy ko la nga xam ne ni suñu làmb moo xëy wax nu ko bu ñu demee record tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu waxoon ne daal fi mu nekk nii moom ku yeboo xaar xam ne tey moom da gis loo xam ne ni daal wala nga dégg ay dogal yoo xam ne yu bees teq la yoo xam ne des na ko jël tey bu nu ñëwaatee ci yëglikaay bi di suñu làmb moom ñëw na ci ka nga xam ne nii moom mooy Balla Gaye Ndour ginnaaw ba mu génnee àddina ak xam ne moo ko fondé mel ni kii nag ak dundug école ba daal fi mu nekk nii yëglikaay ba xëy tey samp blaaj ndax nañ naka la ñu war a dundewaat ndax dund ga dana yombaat ak entraîneur boo xam ne moo la doon ëppoole di Lamine Golo père Balla Gaye Ndour génn na àddina mel ni kii nag école ba yëglikaay bi day jàpp ne est-ce que encadrement a a baax loolu daal mooy laaj bi nga xam ne sunu làmb xëy na tey samp ko keneen koo xam ne nii moom mu ngi ci sunu làmb di booy ñang yëglikaay baa xëy ñëw ci moom mel ni ki nag yëglikaay bi ne na premier combat ak VIP daal ginnaaw ba mu ko ñàkkee digganteem ak Lac de Guerre numéro 2 yëglikaay bi ne na li am ba des daal beneen VIP a ngi boo xam ne daal mooy seconde chance su booy ñang ngir ñu xool nag ndax day gagné combat ba wala nu muy demee sunu làmb xëy tey samp boobu laaj ka nga xam ne ni moom ca États-Unis la nekk di caat bu booy bambara démb nag mooy doon ay xeeram sànni ko mu jàpp ne daal fu mu ko jàpp xanaa arbitre suuf la wut a tere mu def ko lam ko bëgg a def daan ko ba war ci koom mel ni kii nag olof a ko wax tontu du forox móot ja moom tontu na ko nee am ba daal moom ci boppam xam na bu baax a baax li muy def te itam xam na bu baax la muy wax te man itam xam naa bu baax li may wax maanaam daal bu jàmmaarloo ba tàqali ko moom caat daal móot ja na ko dana xam ne wax jooju muy wax moom la engagé waaye man du ko muy daan nekkuma itam ku muy duma loolu mooy waxe ka nga xam ne nii moom moo di móot ja ba nga xam ne nii moom moo di sunu làmb beneen mbër moo xam ne nii moom ca caarooy leen ñu koy wax ame dem moom nag nag daal yéen bi ne daal boo bëggee dégg dëgg depuis 2013 ba tey daa mel ni ñàkkul ab combat moo tax sunu làmb xëy tey sampub ñu boobu laaj jëmmale ko ci ka nga xam ne nii moom moo di ca record record moom xëy na tey ñëw fa nga xam ne ni moom moo di ca acte de ba lam ñu xamal daal mooy CRC bu Thiès ba moom fi nekk nii moom ñu ngay tànn ak seet ak a waxtaan ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo war a bokk doxal liggéey ba pour démarrer mbir ya xëy ñu woon nag photo Maysa Ndiaye ma nga xam ne ba fii ñuy wax nii moom moo ko jiite woon film la moom organisé a xëy ñëw dina ko wax keneen koo xam ne doomi ñaaxar la di ordinateur Mamadou Faye moom daal lem ba des moom léegi nag tànn école de boo xam ne daal dem na ca muy école de lutte booy ñang ba ca Pikine li mu bëgg nag na lenn dongal maanaam daal lambi dóor ji la bëgg a ñëw nag dugg ci bu baax a baax wane ci boppam moom li ma xam daal mooy simple ja moom bu ko defee ci frappe ji dana doy waar ndax xale bu mën a bëre boo koy tànn jàppal ka nga xam ne ni moom moo di ma Mamadou fay ordinateur. asalaamaaleykum wa rahmatullah mboo ko internetu Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ak fu ngeen mën nekk si àddina bi rek Babacar a ngi leen di bëgge yéen ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn waaw maa ngi tey nag ñu ngi ci mercredi ah tombeek 18 euh, novembre mille 2020 ñu bëggee ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm bu ñu xëyee tey nag yëglikaay yi ñu ubbi muy sunu làmb ak bu dee sunu làmb la moom Laye Ndiombor la seqal waxtaan Ablaye Thiam ñu gën ko xam ci turu Laye Ndiombor actuellement moom mooy entraîneur u Jàmbaar Wrestling Academy ba ñoom Papa Sow jiite moom laay njomboor nag tey moo xëy seex waxtaan bu yaatu ak su yëglikaay bi di suñu làmb ñu ne ci diggante Ama ak Modou jàmm ne combat bu aller centre maanaam combat boo xam ne daal ah euh, mu ngi noonu combat la boo xam ne lépp mën na ci am ci bébu combat moom laay njomboor loolu léegi jàmm na tamit ñoom ñaar ay vrai gaynde lañu waaw wax na dëgg yaakaar naa ni Modou Lo kenn du ko laajte ci carrière am ba fii ñu koy waxee nii tey wax dëgg yàlla ku ne gis na ne jox na gëddëm carrière am jox na gëddëm tamit li muy def muy làmb ji ba tax na tey loolu moo ko may tey mu dem ba nekk roi des arènes te tollawuñ des fois ci taxawaay ak dayo waaye xëy na bëgg li muy def fulla ak fayda ak moo tax tey mu yegg si fii kon bu laay njomboor jàppee ne moom gaynde la loolu tamit ci wàllum jëfin manes na taxaw ndax defe naa muy bëree sax jing ci gis jikkooy gaynde ndax song ma muy song rek dèjà gaynde noonu lay songi la mu bëgg da koy jëli moom du ca xool sax dansé ba ca nekk yooyu day dem rek wuti ko muy xale boo xam ne tamit yàggul ci lamb ji naa su ne liggéey na te mérite moo ko ko may du loo xam ne nii luñ ko puusal la wala nangam dafa liggéey ba tey mu war a bëri ak roi mu mel ni kon combat la boo xam ne daal ah nañu yónni yàgg ma nga xam ne suñu soppale suñu waay yàlla na ko yàlla dimbali ba mu tëg boobu ak Boy Faye mu ngi mënaan combat boobu ba Babacar kañ la ndax dina am ma ne leen incha allahu rabbi combat ba dana am am nañ yàqin ne lig Nicolas ma ko taxawloon dana ko tëgg ndax li ku ko xam-xam ne homme de défi la loolu moom lu ama am solo la Papa tamit laay njom na xam na li koy xaar contre Siteu waaw loolu moom defe naa ne mooy li war a ne parce que Papa ku ne xam ne kombaam yu mujj da koo ñàkk bi ci des mooy dafa newoon ci écurie jóge fa muy faas ñëw sañc lu bees di bëre xale boo xam ne moom itam dafa ñàkk kombaam ak guy gi bu bëgg a jógaat muy Siteu kon komba la boo xam ne bu laay njomboor ne papa xam na la koy xaar defe naa loolu waxi dëgg la komba bu metti moom mooy xaar papa Sow waaw foofu moom xam naa ne lu yomb du fa am Franc tamit jàpp na ne amul mbër bu mënta daan ci làmb ji tiitalu ko benn mbër daal waaw loolu mooy waxi laay njomboor loolu lu war a nekk parce que Franc moo xam ne ci tamit wax dëgg yàlla ah bu bu bu ñuy tànn ñi ne ci podium bi bu dee ñett lañu Franc faw mu bokk ca ñett ña xaw ma nag dina nekk premier wala deuxième wala troisième mais da cay bokk parce que li tax mooy la muy wane ci lit simple moo tax yaakaar naa gëjës na ko see gis sax mu daanu ba daaw su ma jumul Serigne Ndiaye numéro 2 moo ko fi jot daan benn jéel ca ñaaxar su dul loolu gëjës na ko gis mu daanu tournoi yi mu parce que bu dul boobu daaw yépp da koy jël muy xale boo xam ne nii ah lamb moom mu ngi ci bokk na ci te mu ngi ci wane boppam waaye tamit am na client bu sérieux muy nga xam ne nii moom moo di Tyson 2 bu Tay Singa moom la war a bëreel loolu mooy waxi laay njomboor jàpp na tamit Bira Sène ah bu ñëboo xeli daal ci moom ndax moom xam na ko bu baax a baax wane ko waaw kulli xamee naak parce que ñoo bokk Saalum ñoo bokk Kaolack te moom nekkoon na ci équipe bu Kaolack bi drapeau de l'état gagné ko te su ma jumul jamono yooyu Bira Sène moo nekkoon seen président moo nekkoon président CRC ne a jariñ làmb Isabelle Samb tamit ak lañ réew mi la moom Isabelle Samb defe naa tey mérito na sax lu ëpp loolu ci réew mi ñu ne muy Sénégal parce que nag yàgg naa génn te défendre couleur réew mi ay moromam kon defe naa ku mel noonu ambassadeur la te itam chaque jour saa yu génnee dana représenter réew mi dignement moom Isabelle ñu koy ñaan tamit lañ ko wóoloo ba jox ko muy olympique ba yàlla na ko réussir fa nga xam ne mooy ci bureau CNC la ak dundaatam ak père Balla mi dem ah loolu nag la ca des la ma waxoon kere laay wax rek wax naa ko kere ci benn micro maanaam mujj pusu bi mu réer ña fa des lool la ñuy bañ a def waaw mën nañ caa lim ña leen di encadrer président ba Moussa Ndiaye ak entraîneur yi rawatina ku mel ni Lamine Golo parce gis nañ ko muy entraîné mbër ya tamit ak koo xam ne tey coow li lépp ci moom lay mujj a dellu si bu ko xamee mooy li am bu ko xamul mooy la am muy Balla Gaye numéro 2 ndax tey ku ne école Balla gay da nga sa xel day dem ci Balla gay numéro 2 parce que tàgge boo gis am na jàppal diw loolu la yàlla sunu borom bi dogal te ay mbër yëpp mën ngeen nekk téeméeri mbër man Mansour ci benn écrit waaye soo bëggee dégg dëgg mel ni mbër ngeen di gunge wala ñaar loolu la yàlla dogal moom xëy na moom muy mbër ba nga xam ne ci école ba moo ca nekk roi des arènes moo ca ëpp tur moo ca yàlla moom la ëpp daal dara jaay làmb moom la ko yàlla jox kon defe naa tey mook ñam ñoom ko bokkal muy ñoom lees ñoom Elton ñoom ñëpp ñoom Lamine Golo ñoom ñëpp defe naa ne tey ñoom am défi boo xam ne ñoo ko war a relever mooy école ba fa ko ga sampoon ak lam ca jot a def ñoom ñu fexe ba def ci lu supérieur lool defe naa loolu su amee mooy nekk li leen war su amul nag dama naan kon échec la te defe naa loolu kenn du leen ko yéene Boy Niang ba tey ak itam loo xam ne nii maanaam beneen sens boo xam ne maayaat nañ ko ko ci VIP ginnaaw bi mu ñàkkee bi mu amoon digganteem ak Lac de Guiers de loolu nag sunu làmb ko xëy wax am mel ni làmb tëdde noonu ah yaakaar naa daal mook tafaatin nanu yónni yàgg rek insha rabbi xalaat naa dinañ gis combat bu neex a neex a nag ndax booy ñaa bi yoon dana daan wala du daan waaye loolu lépp ci biir bëre la bëre moom lépp a ci mën a am waaw tëgg seen làmb waaw defe naa ne kere ca bañ leen di présenté fa nga xam ne moo doon ca Yoff ah, ca sama place xarit ba Ibulaay bu xariñ lu defe naa ne kere ku ne gis na waxante ya waaw ñoom ñaar muy combat bu nar a neex ba tey bu ñu demee record acte de l'arène ba Thiès ñu nga ci ay consultation pour wàllum xam naa démarrer seen ay affaire ak yu mel ni ki noonu wala CRC ak yu mel noonu parce ko jiite woon mais ni kon ñu itam daal ah, xaw kuy ñëw waaye am na lu koy xaar foofa waa film la organisé nañ seen première gala ci lit simple bi mel ni kon gars yi dañu lam lam namm lit simple bi xam naa daal tey décision yi ñu mën a jël bokk na ci moom ñu fexe wax gars yi kañ la saison bu ubbi ndax nag fi mu nekki nii waa ahlu lamb wala réew mi ci boppam a lamb seetaan lamb muy lamb bi simple jàk lamb bi dóor jë kon tey décision yi bira seen di jël muy réunion bu njëkk ñuy xaar lu mel ni ki noonu ordinateur ñëw na léegi école it Boy Niang ordinateur nag defe naa ne kenn du ko présenté rawatina amateur u simple yi muy xale bu mën a bëre Mamadou Faye di doomu ñaaxar macha allah am talent lool kon defe naa lit avec frappe bi bu ne tey def ci bëgg ñëw pour wane boppam ah defe naa itam loolu lu ama am solo la ndax nag lit simple bi baax na waaye lit avec frappe bi tamit boo ci mënee perse ba nekk ci dara itam dafay ëpp sol day gën a baax rek ndax lu baax di baax baax gën a baax day gën baax waaw kon yàlla foofu mu jëm daal ah na dem ak jàmm rek loolu lañ koy wax école booy ñaa moom wax dëgg yàlla ay mbër nga fa ay technicien nga fa nit ki nag fi nga am yaakaar rek foofu nga mën a dem euh, ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñanal ñëpp jàmm xam nga di wax ne que daal yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm barke bi sallallahu alayhi wasallam corona ba mu ngay wàññeeku yàlla na gën a jeex tàkk tàkk tàkk mais am na nag lu ñu jaaxal lu ñu xëy gis tey fu ne ci net beeg fu ne géej gi xaw ma lu ñu fa sànni xaw ma lu bon la xaw ma waaye moo lee demoon ci géej ga nappi daal seen kanam yi seen bët yi seen loxo yi na mu mel moom doy na maanaam ay picc ak yu kenn yu yu yéeme yéeme affaire yu doy doy waar xamuñu nag lu xew moo tax nag fi mu nekk nii lañ doon wax la ñuy wax rek géej gi moom pour man du solution jël géej fi ne da ngay dem Espagne wala Italie mbaa France man yaakaar naa ne du solution solution bi mooy même autorité yi jiite réew mi man dey président bi jiite réew mi Mansour du tax ma jaay sama bakkan bu ko neexee ah na gouverner nu ko neex waaye man Babacar sama bopp laa mën a xam yàgg maar nit ki daal neel ci sam réew gëm la nga gëm ñàkkante ko yàlla waxul kenn dara man mi di wax ak yow biir Dakar yëpp ambulant naa fa jaay naa fëgg jaay lu ne def naa ko parce que xëcc bu dagul dikkan te yàlla rek a fi nekk mi bind président moo bind baaba Babacar bind keneen te àddina day continuer kii dafay ne tey ëllëg keneen jóge fi kon nañu jàppoo bokk nday bokk baay ñoom nag ñoo ñu laaj kar ba ñu fal leen ngir lay war a suuli nit ki boo ko laaj ba mu fal la lam la joxe na nga ko fexee doxal ngir satisfaire ay besoin wala nga jàppale ko ndax na satisfaire cent pour cent sa mënta ne mais nga jéem ko épauler pousser ko tuuti ngir moom mu mën a avancer jëm sa kanam di ñaan Sénégal yéen fi yàlla def jàmm barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam